mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax lu xew rek moom la ne tey xew xewit bare na ne ne mu nekk histoire boo xam ni bañ ko dale bind yàgg na te mooy ba doomu aadama nekkee représentant yàlla ci kaw suuf ne te maam aadama li muy nekk aadama am na it ay awaadim yeneen aadama waaye nag li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la maam Cheikh Alxaaji Abdou daan wax daf ko nettali waaye waxu ko nee na mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbaliwul rek ci maam xaaji abdu wala chal xaaj malik ak sunu baay yu baax yi ne loolu yàgg na te moo di ba yàlla waxee maam aadama ni ko yow yaay sama représentant ci kaw suuf ka mu jaaree la mbir yi ci loxo yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ak yàlla seen diggante yàlla rek ko xam moo tax sa maam ju baax ci Cheikh Alhaaj Malik radiallahu anhu daan wax ni allahu ganiyun bi nafsihi an nafsihi yàlla soxlaalul yàlla dara bu ko defee nag président ne ci turam ci turu xalifa bi président xalifa beng leen di dalal ne Seydi Aboubacar magam ji ne xaritam la wallaay soppeem la ne yàgg na ak moom ne 1948 ak léegi jëm 50 ne loolu yàgg na du tey mu di ko jàngal alquran ci keparu alxaaji cheikh njaay ma bey ne di ko taxaw ak fii ci Tiwaawan ne bu ñu masaana gàmmu si ne du bëgg àlluwaam dara manqué ci loolu moom mi mënu ko wax du ko wax waaye bor la buñ ko war a fayee ne ci teewaayu président mag Macky Sall ne daal président nga xam ni magam ji léppam la nee na benn benn nit yi may ñëw di ma seet si daf leen di faral di wax ni na ngeen yëg ni jëmm ji daal mooy jëmm Maodo si mu toog se jëmm Maodo si mooy wax waaye waaye nag jëmm kilifaam sangam lay wax kàddoom lay waxe ne moom mii bëggul ko wax jëme ci moom dara nee na moom xam na ko waaye moom mii am na xasida benn way poème bu mu def ci moom ne def ko bind ca biir waye ni ko sama lépp ngoog ne tamanit ba ma koy wax lu ma gëm laa wax ndax moom mii dafa di ku dëggu di ku takku di ku dogu ne ci wàllu yàlla ne moom mi toog dara feesul bëtam lu dul yàlla waaye su yàlla feesee sa bët war nga ni gees ay jaamam waxanteeg ñoom ci dëgg jëflanteeg ñoom ci yéene ju sell ne daal mi ngi koy sant di ko gërëm ne président yàlla na la yàlla doole sàmm amin ne moom bés bu ne mu wax ko daf la bëgg yàgg na daf la yàgg bëgg nee du wane nag sa bopp nee sama kër ca Dakar bare na dog yoo xam ni mooy ay ñaan yu ñu daan def bu ñu julee tàkkusaan ba sëlmal ne ki ñu koy jagleel moomale ko ko mooy sunu sëriñ sëriñ Babacar sunu yaakaar ne moom daal mënu ci wax di kenn rek ci moom waaye yow président mi ngi lay dollee ñaanal ci turam ne tabaarakallahu sa dal sa teey sa mbaax ne rakkam jële Ablaye Daouda Diallo ne matul semaine woo naa ko téléphone wax nañu ma ni ñi ngi lay sant ndax yow weddi woo sa bopp sorti bi nga def ku ko deful itam te bokkoon reproché nga sa bopp ma ni ko Abdoulaye jërëjëf Macky wàccoon ak yéen faf li ma ko wax ñu waxtaan ci ci téléphone guddul ndax moom barewul wax ne moom it amul jot bëggul late ndax magam ju baaxam ji lay roy yàlla dogal ne bi loolu weesoo maa ngi lay dégg ca États-Unis d'Amérique ne mat na ay fan ci tey mu di la suivre dégg na nga wax ñoom ak ànd la rafetal waaw ba mu yàgg nga ni déet du yàqal kay dem dara waaye du la yéene la cay juddoo ne fi muy tëje kàddum ci centenaire maam Seydil Hadj Malick nee na lii la waxoon ne dafa waxoon cofeelam ci yow jaayul boppam ñëw ma ci yow ni la président lii laa bëgg voilà nee na moom ba mu lay bëgg ne te ca Petrosen la woon waa président nee na moo am nee na ca Petrosen Serigne Maodo moo fexe ba am numéro président woolu ko nee te booba ingénieur kese laa woon ca Petrosen mu siiw ko rek ci benn débat fexe ba jokkoog man loolu moom daf koy séede président nee na loolu moom dafay sede li ngay wax dëggal ko ne sëriñ bi daal nee na fi muy tëje kàddoom yàlla bu ga wax gaaw a jeex amin fekk ñu ngi wax lu jaar yoon te di ko wax te di ko waxal ña nga ko war a waxal ne daaw jéeg wala daaw ci sant daaw ci centenaire maam Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu ñëw nga fii seet si xalifa bi ñu waxtaan ak yow fii la woon keroog ma wax la sama cofeel ci yow feddali ko ci kanamu sëriñ bi te sëriñ bi xam na ko ma ni lii nag ñu wax ci makki ku ci àndul fal yashrabil bahra nanga nga naan géej gi bu la neexee ne loola daal lu nekk lañ ma ci yekk waaye man bu fekkoon ni séddu dafa am sëriñ Babacar mii mooy sama lépp mooy suñu xalifa maam mooy suñu xalifa ne te moom mii mi ngi koy répété dafa yàgg ak sëriñ daf ko yar de dafa sonn ci àlluwaam ca Dakar rue du Sept kër ñoom soxna aji aram Diène ak Ahmed Diène Baye Dame Diène booba ñoom seen mag ñoom ñëpp góor gi alaaj Cheikh Ndiaye maa béy moo doon denc seen mag ah, soxna wuli ma tëj jéen fii ci Tiwaawan dafa ma daan yar de maa ngi am lu ma mas a def tëg ba guddi rek mu ni nañ dem tool mango ye ne man daal ma ñëw ni mu leen ko man <laughs> bu baax nee ñoom Lamine Dieye suñuy nopp ne ñoom Lamine Dieye ni ko doon tooñ film am na film yu daan daw ci yooyu jamono Zorro ak ak ñoom Daniel Frédéric <laughs> ne loolu yëpp ne ci njàng mi la ma dem madinatul munawwara 1960 ne sa pap abdu yóbbu ma jàngi mu dem continuer njàngam ne xelam yëpp nekk ci sëñ Babacar Mansour ndax boobu moom mii ma nga ker ma fexe ba yàlla dimbale ma ma dem keer ba ma wàccee ca suba sa ma naa dem seeti ko ma seeti ko bég xaw ma ku dul moom démb ak tey incha allah ak ëllëg ndax xam naa sama Pape Mansour cheikhul qawmi waaw dañu am na ñoo xam dañuy defe ni sax gannaaw baayam Cheikh Hadj Malick lañ ko doon wax nee te naaru gànnaar yi ñoo ko jëkk a tudde moo taxoo woon ak papam moom maam Cheikh Hadj Mansour mooy bind lettre yi mooy dalal gan ñi dépense yi moo koy joxe naar yi jóge gànnaar am na ñu daan ñëw moom la leen góor gi di booleel am na ñu daan ñëw di jàng ci maam Seex Xaj Malik kenn daba ko ci xam-xam bi loolu amee nag ma dem téléphoné ko Xaj Malik ñëw nga ma ni waaw waxtaan ñu jóge fa Arabie Saoudite ñoom seen bourse moo gënoon a ci jamono yooyu bu la keer di fay soixante quinze mille Arabie Saoudite lu mu néew néew ñu ngi lay fay deux cent mille trois cent mille ma dénk ko sëriñ bi bi ñëw vacances mu ni ma bu kenn xam ni dénk nga xaalis ba ma jox la ko buñ ko xamee bala may dellu si dootoo dara ndeysaan daal daf lay seede rek digganteem ak magam ji ci xeetu toppatoo yooyu président daal foo jëm yàlla na yuru yàlla topp la nee daal suñu cofeel ci yow moo ñu ëpp doole nee te itam wutuma ci dara nee léeg nit di wax lu baax ngeen baal ko kàddu yi naan wutuma ci dara dafay yàq waxam koo defal mu sant la koo jëflanteel yiw mu gërëm la ne ñe naan fal yashrabi ba lu tax ñu di ko wax ne tey jii la mu doon wax démb tey la nee na mi ngi koy giñ ci yàlla mi ngi koy giñ ci yàlla mi ngi koy giñ ci yàlla benn yoon la masa dem kër président te dama ko wax ni ko dama bëgg a ñëw pale mu ni ma sëñ bi xam nga sama kër mat na léegi at ma ni ko déedéet mu ne ma maa nga Mermoz tegtal ma kër ga ba ma demee ma ànd sa ak sama soxna di sama doomu baay alxaaji Habib di soxna Safiyatu maag moom ñëw bokk yem cofeel ci ci xaaj Makki ne président xat nga ba pare dog yi ñu daan def waaw am na ñu ko fekkee daan nañ ko fekkee mu di ko def gannaaw tàkkusaan ne sëñ kan lañ koy defal ñaari ñaareelu dog bi ku ñu wax kan la koy defal ku ñu wax alxaji Macky Sall ne bu ko defee daal président dénk nañ la yàlla ne sam papa daan na tëje ñaan antamat wadiul wadiatu awlaana alxafid wa man yakun wa man yakun wadiata mawda mawlaana alxafidi naja ne sa baay abdu nee nañ la yàlla ku ñu nañ la yàlla yàlla dénkoo la mucc nga comme président yàlla na nga mucc ne daal mi waaw nee na li génn yëpp génn cofeelu rek mooy génn neen daf la sopp rek tabarakallah jërë jërëjëf nee na kontaan na bu baax wallahi nee na dafa euh, premier ministre euh, sëriñ bi nee na jërëjëf mais mi ngi lay sant di la gërëm ak mboolem kilifa ministre yeeg président haut conseil yi nga xam ne ànd nañoo président tabarakallah nee na foofu daal la yem jërëjëf